سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين gannaaw sant yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu mbooleem ñu fi teew kenn ku nekk si turam ak santam di jiital si nuyoo bi sëriñ bi Cheikh Ahmadou Sarr di doomi Cheikh Mahmoudou Lamine nga xam ne amul sikk moom mooy sangi jotaay bi ñoom rek lu ku fa munti nekk rek ñoom ñooy sa njiit ndax lu tax ñun bàyyi rek lañ am te moom rek lañ bëgg li Seydaal yi waxoon ne moom mësta xëccoo ab sëriñ lu may nekk taalibe bu dëggu rek mu ne nit ñi buñ xamoon li si taalibe bu dëggu danañ bàyyi sëriñ sax ngir jéem a nekk taalibe bu dëggu ndax maqaamaay taalibe bu dëggu sax moo ëpp maqaama sëriñ moo tax ñun moom ay taalibe rek lañuy ñuy nekk ba pénc bi yàlla ndax loolu rek lañu bëgg Cheikh Hassan Niass maa ngi lay nuyu bu baax ci kàddu yu rafet yi nga xam ne yëkkati nga ko yaag sëriñ bi yëpp te kàddu yëpp nekk kàddu sant yàlla di kaddu xam-xam yoo xam ne dëgg-dëgg bàyyiwu bàyyiwu bàyyiwu leen fi sax lu waxkat di wax ndax man damaa waxoon ne bu ñëwee nañ ñaan rek ñi tas jotaay bi ndax bàyyiwu leen fi loo xam ne sax nit mën na koo wax waaye di gërëm tamit oustaz Barham bi tey moom mi doon def conférence bi léegi euh, defee ko si chewku ak si mbëggeel ak si bëgg jaam yàlla yi jëriñu tem bi nekkoon lan inda zikri saalihiina tatanazalu rahamaat ndax fu ñuy tuddee saalihiina yi yërmaane yàlla dana wàcc ndax imaam Junayd bañ ko laajee ne fu ñuy tuddee saalihiina yi yërmaane yàlla dana wàcc ñu ne kon bu ñuy tudd yàlla lan moo war a wàcc dafa tiit ba xam ndax fu ñuy tuddee yàlla moom comme li yàlla wax si xadiisul kursi rek ana jëli su man zakara bi maa ngi toogaale képp ku may tudd te ki nga xam ne mu ngi tudd yàlla comme li Seydina Ali wax nit ki buy tudd yàlla dana dem ba nga xam ne képp kuy tudd yàlla mu ne si waxtu boobu wali yàlla la ndax lu tax dem na ba amam gi nekkutu fi waaye amag yàlla gi moo fi nekk moo tax yàlla ne ana jëli su man zakara ñu ngi nuyu suñ soppe suñ xarit Cheikh Aliou Diagne eh, di nuyu eh, Seydi Ahmadou Diallo nga xam ne ñu ngi àndee ma dina ñëw ba fii ñu ngi nuyu Cheikh Hadiloo mi nga xam ne mooy mag ci kër gi moom ak ay rakkam ak ay magam ak ak Cheikh Ibrahima Diassi ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen taxawaay bu baax si bis bii nii ndax nit ku nekk lu baax rek nga am lu mooy li nga xam ne sa baay bàyyil na la ko muy lu baax nga jéem a jaar ci loolu ndax ku nekk xam na imaam Jimloo gëdd bi mu amoon ci yàlla ak cër bi mu amoon ci yàlla ak ni mu baaxee woon tamit si xam-xamam xam nga ñu bari am nañ xam-xam waaye taxul ñi baax si seen xam-xam ndax xam nga bu fekkee ñun bàyyi yombalal nañu lépp am na ñoo xam ne ñu ngi denc lu nekk waaye nanguwuñ koo génne ngir nit ñi jëriñu si ndax xam nga njëriñ dëgg-dëgg mooy lan mooy njëriñ gi la yàlla jox nga fexe tasaare ko ngir ñëpp jëriñu si waaye ànd ak ne li jëriñ li di bari bëri mësu see mësu see gis ba ko te loolu mooy lan loolu lay bàyyi di wax ne fala aarifu man taraka al muraadaatuhu li muraadaati l aarif mooy koo xam ne bàyyi na namm namm mi ngir namm namm yàlla yi moom namm nammam yëpp daf ko ngale na fi léegi ci teggeen comme li Baay wax rek utlub murabbiyan xabiran eh, naasihan kaamila irfaani nga xam ne shahadi sax moom la tëjee waaye loolu dafa nekkoon ci moom xam nga ñu bari mën ngaa yaakaar ne murabbi lañ fekk duuñ murabbi ndax yarekat yombul fekk sax yow sa bopp nga yaru ba pare ndax xam nga yonent bi sallallahu wax na ne addabani rabbi fa ahsana ta'dibi xam nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam balaa di ko yónni sax yar na ko ba rafetal yar gi ba mën a yare ndax xam nga nit ki bu la yàlla dimbalee nga yaru ba pare ndax benn waaye am nag sëriñam ñi dem ñuy jublu penku sëriñam taalib sëriñam xaxandiku tëf li mu jël jublu penku taalibe bi ne ko man sëriñ boo xam ne mënta wattu ëdëb min aadaabi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam du ma ko jox sombo kooku keroog la tàqalikoog sëriñ daaw bañ fi teewee ci imaam jim doo ndeysaan li muy toog yëpp lim lay laaye biir di laaye biir di la teg ci li nga xam ne loolu la waajur yi nekkoon ndax waajur yi lu baax rek ci lañ nekkoon dem na ba ne ma imaam jox na ma tur boo xam ne heure bu ma ko heure bu ma bëggee xaalis bu ma ko defee lépp lu ma soxla si xaalis danaa ko am nga xam ne àggoon nag li bàyyi di wax xat xasani bil ilmi wa tasrifi in qultu kun yakun bila taswifi ah waaye waaye lakinnani ittaxastuhu wakilan te adduban faxtaarani xaridan xam nga dem nañ ba jot maqaama kun fa yakun bi sax waaye tey gis ñoom mbir mi dañ koy bàyyee yàlla rek yàlla di tasarrufaat ndax fal aarifu man taraka al muraadaatu li muraadaati lxaq ndax xam nga lu kooku mooy aarif dëgg-dëgg ndax xam nga temps yi damay waxtaan ak benn waay mu naan ma tur nangam ay diw sangam moo si ëpp may tur nangam kër sangam ñoo si ëpp may ma ne ko fexeel ba li ngay wax na nga ko xam ma ne ko bàyyi bu muy wax tawaytu wa sahantu yaa tariqil xaqi ndax xam nga duur ne yooni dëgg du yooni yàlla gi rek waaye lépp comme lu mu wax udriku man mada yafuutu man baqa wa in tasaabaqa rijaalu asbaqa bu ñi ma jamono wanteeg yëpp raw naa leen ñi ma jiitu raw naa leen ñi ma jamono wanteeg raw naa leen bu góor yàlla yi doon rawante ma raw leen ñoom ñëpp comme ni ko sëriñ bi waaye laakin ne nii te jëllaytu qabla sibaaqi xam nga ku yàlla dimbale kooku nekk di sa sëriñ dëgg-dëgg war ngaa am doxee ci ndax fii kenn ku nekk rek mbaax rek nga bugg moo tax nga bàyyi sa ittee ñëw fii ndax ñun ñëpp yàlla lañ bëgg moo tax ñu ñëw fii te ku fi ñëw tamit du loo dugal sa poose bi moom ngay ut ku bëgg loo dugal sa poos bi comme ni ko a di waxee demal nga liggéey ko dëgg la xam nga bàyyi dafa wax ne mu ne réew moo xam ne dañuy xëy duñ liggéey mu ne man Sénégal gi rek laa ko gis mu ne tey foo dem ci àddina bi nit ñi buñ xëyee dañuy liggéey kenn du am temps yi kenn mu ne waaye senegal rek ngay gis koo xam ne dana xëy du am lum liggéey mu ne loolu li ko fi indi mooy tubaab yi ñoo ko fi indi waaye ñun loolu buñ ko nangu mu ne teg si ne lépp lu ngeen gis may liggéey man bàyyi na ngeen ko liggéey lépp lu ngeen gis may bay sax na ko bay kon loolu yéene ni ñun taalibe yëpp ñu xam fan lañ war a taxawee ndax xam nga bu fekkee ne ku mel ni imaam Jimdo ñu ngi koy fàttaliku duur ne dañoo toog fii di fàttaliku ngir di waxee seen bànneexi bakkan déedéet xam nga ne Cheikh Amadou Sarr mi ku em ni Cheikh Mahamadou ak cër bim am ci yàlla nga xam ne imaam gis naa benn bindam bu mu bind mu ne gis naa yonent bi sallallahu alayhi mu lëng leen moom di leen wax ne leen ashraafukum ashraafi wa majalisu zikrikum majalisu zikri wa ahlukum ahli dem ba àgg ci loolu kon nga tol doomam si ay caaxaan kooku du kon kooku li mu am daf koo liggéey daa comme li yàlla di wax ci alquran képp koo xam ne yaakaar nga ne danga nga dajeeg yàlla boo yaakaaree ne da nga dajeeg yàlla rek na nga jaamu yàlla te bañ koo bokkaat ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na képp ku bëgg a dajeeg yàlla rek yàlla bëgg naa dajeeg yow ku bëggut a dajeeg yàlla it yàlla bëggut a dajeeg yow waaye amul si keneen nit ki loo wiri wiri tamit xam nga bu fekkee ne comme li bàyyi wax rek bu fekkee ne dara nekk fi yàlla ak foo wiri jëm moom ngay dajee wax ndax fa nga jógee moom nga fa bàyyi fa nga jëm moom nga fa fekk ndax yàlla moo tax ñu dajee ndax bu fekkee ne moom lañ fi daan fekk tey kon ñi fi teew yëpp jotaay bi wane na ne yàlla moo tax ñu ñëw ndax bañ ko fi fekkul tamit fekk nañ fi yàlla comme li Baye di wax benn waaye ñaan na yàlla aji ba mu demee ba taxaw si ba mu demee ñaan na benn yoon ñaari yoon ñetti yoon ajut ba mu demee ba taxaw di aj lan la wax yow yàlla ni nga nangoo suma aj yu njëkk yi yàlla na ko nangoo suma aj yi loolu mooy lan innamal amalu binniyaati yéene gi rek moo am solo ndax wax na ko ziyaare ne ja ne ziyaare ngeen fi daaw fekkul ma fi ngeen def ko daaw ji fekkul ma fi waaye ren fekk na ma fi waaye yalla mi fi doon nekkoon moom moo fi nekk ba tey ndax comme ni ko ñëpp waxee rek maa kaana lillaahi daama wa tasal wa maa kaana li gayrillaahi inqataa wan fasal kon jëf ju baax rek moo am solo ndax comme ni yàlla wax si alquran ba muy wax ci saalul asr bi ne nit ña perte nañ mu sita ñeent sax ne perte illa alladina amanu wa amilu xam ne gëm nañ yàlla jëf-jëf yi yiw yi dénkante dëgg tey dénkante muñ mu ne ñooñu rek ñoo pertul te lii yëpp mën naa bokk si e, ñi nga xam ne dañuy gërëm bàyyi si ay jëfam ndax comme li bàyyi wax daawatu rabbi an yaaw mahadi kullal wara ma yahmaduna saa yi ñaan naa yàlla mm, ñaan naa yàlla mu matal suma njub si mbooleem mbindeef yi te ñuy gërëm suma jëf te tey pay yi bàyyi Mawlana Cheikh Ibrahim ku nekk xam ne ne xam-xam rek moo ko amee ndax bu fekkee alal la comme sëriñ bi wax na ko léegi ne bàyyi nee na su ma taalibe bew laay bañ si ñoom moo tax day gis ba maam Abdou Niang génnee àddina sax muy wax qad fuqidat aami buduran indaha wa tajburul kasra biha fa innaha di ñaanal waa madina eh, wa tajbirul kasra biha fa inna qad fuqidat aami budurun indaha rabbi ah, ya rabbi fala tazaraha xaawiya wal tuksiranna xayraha aalimuhum yudarrisu aluluma fi kulli saatin yuri lfuhuma walaabiduna yalzamuna zikra li joocihim rabbi yasuqul mayra yàlla nañ ko yàlla defal si barke ba allahuma salli ala alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah abonné leen ci seen chaîne MALBN bu leen fàtte bës kolos bi ngir ngeen mën a am bépp xibaar bu aju ci wàllu faydu bi